un putsch perpétré par les euh, par les euh, da nga jàpp ni euh, tey ci PDS euh, dañoo dañoo nangul wala boog dañoo jàppale président Macky Sall am lu nga xamante ni ñoom seen seen jamono réussir wuñ ko pour Wade. comme quoi. prolonger son mandat. Ah! <laughs> en tout cas PDS ak Macky réeroo kii réeroo wuñu réeroo wuñu. euh, aujourd'hui le président Macky Sall a besoin d'une nouvelle majorité électorale comme politique de telle sorte que dans les jours à venir ou semaines à venir maa ngi xaar Karim Wade ànd ak Macky Sall liggéey. ci gouvernement par exemple parce que am na ñu ko annoncé ci gouvernement bu yees bi. par exemple parce que aujourd'hui euh, amul kenn koo xam ni. bon on était dans la logique de la des retrouvailles de la famille libérale am na waa APR yu bëri yoo xam ne PDS lañ jóge PDS lañ jóge que peut-être que sax jàppale Karim Wade sax bu fekkee moom la Macky Sall tànn moo leen gën a yomb jàppale doomu Ablaye Wade moo leen gën a yomb jàppale Amadou Ba. d'ailleurs man la mais dégg naa dalal naa fi ku mel ni Serigne Mbacke ancien ministre. moom loolu mu ne ne soyons pas étonnés ci gouvernement yi di ñëw. ci <laughs> en 2024 ñuy gis ci les éléments du PDS nekk ci biir gouvernement parce que positionnement bi dafa commencé am na ñu bëri dañ koy wax rek ah parce que ils veulent se positionner aussi parce que boo nekkee PDS c'est plus facile bu PDS euh, bi mais et puis seetloo dëgg euh, Penda. Mm. Euh, Macky Sall dafa mel ni waa PDS la gën a nekkal complicité que waa APR. mais lu waral loolu. quand je parle de la. ak lépp li fi xew avec l'histoire de Karim Wade mais ñoom la xam non non je parle pas de du du parti de la formation mais. mais mais parce que man li ma jaaxal dans cette histoire fii lañ gis waa PDS ñu mun digérer Mimi Touré parce que jàpp nañ ñi moom moo nekkoon derrière. dëgg la euh, tout ce qui s'est passé ak ay Karim et pourtant ñoom mun nañ toog ak ku ak ku mel ni Macky mais parce que Macky Sall loo ci gis bi mu demee ba xam ne Mimi da koy yàqal daf ko jëlee ministère justice arrêté arrêté arrêté traque yi est-ce que c'est pas quelque chose qu'il est en train de regretter maintenant génne ko ministère justice yóbbu ko après dax donc saa veut dire que réerawuñu. parce que li nga nekk di wax nii. c'est-à-dire c'est si important parce que on a comme l'impression que ni président dafa nekk fu ne di jubbanti. Ah, ay erreurs mais réel politique nekk. parce que Macky ak ñi mu àndal même s'il doit partir mais dans quelles condition il va partir aujourd'hui lan moo leer APR jubawuñu il faut un autre grand rassemblement Benno Bokk Yaakaar moom si boppam il a diminué tellement ses alliés. xoolal xoolal AFP benn ministre la parce que quand on dit que aussi l'AFP ne représente plus plus rien mais parce que joxoo leen dëkk même réew mi ñëw barki dem dugg sax yéen du génnaat moo ëppale woon ministre AFP parti socialiste lan la amati donc ça veut dire que euh, allez wàññi na leen na ba nga xam ne fi mu nekk nii mais il peut pas continuer avec Benno sans s'élargir maintenant le danger c'est que ñële si c'est des socialistes le parti socialiste ak l'AFP mais comment comment ils vont faire maintenant avec euh, avec ce, gouvernement en tout cas ces retrouvailles libérales mais ce que je conseillerais à Macky que mu bañ koo teg rek si cadre retrouvailles retrouvailles famille libérale non il a des gens des socialistes en tout cas d'autres obédiences les les partis de gauche qui ne sont pas d'ailleurs d'accord avec cette décision de report ah euh, je crois que PIT la xawma ñan LD Debout ñi ànd ak euh, LDA 6 xamal mais ñi nga xam ne kiwuñu mais ñoom ñoom nee nañ nee nañ d'accord mais ce qu'il doit faire mooy que ne génn si gouvernement bi donc il y aura des gens qui vont sortir Macky Sall a besoin d'une nouvelle majorité et je je pense que le PDS pourrait être Euh, un nouvel allié un nouvel allié pour euh, Macky Macky Sall. dans ce cas-là est-ce que kon mën nañ gëm ni candidat Macky dëgg-dëgg fu mu fu mu war a mën a jógee bokk na. ci PDS mën na jógee PDS mën na nekk Karim Ça, je peux le dire. Hein. Le futur candidat de Benno, le nom va changer certainement, peut être Karim Parce que le PDS jouit de beaucoup de soutien au niveau des alliés actuels de Macky Sall. Mm-hmm. Au niveau de Benno Bokyaka. Mm-hmm. Modou mm -hmm. Fada, Néomani des contre. Dal, Pape Diop. Il est Manarero. Le cas peut-être Idi peut poser problème. il pas important. ay waxtaan la. oui non mais Macky ne peut pas partir comme ça à des élections loolu peut-être moo tax euh, suspicion yi bëri quoi euh, quand quant à sa volonté de reporter les les élections il faut un grand ensemble même bu dul euh, plan mais le pays en a besoin euh, Penda ce pays dañuy fàtte ni il y a pas longtemps le pays a été agité le Sénégal dund na dund dund na loo xam ni. mën naa ne masu koo dund en tout cas dans cette histoire contemporaine du Sénégal li xew 21 mars avec ses nombreuses morts li xew en juin passé avec cette destruction massive d'édifices publics universités et tout ça mais vous croyez que le Sénégal day tabaat rek continuer à vivre comme si de rien n'était ah mais écoute Sénégalais waruñu fàtte les autorités publiques ñoo fàtte tax am ñu jàpp ni acte président posé. war ñu peut-être lu lu dangereux. parce que l'infiltration est là les nos institutions sont infiltrées autant notre profession est infiltrée. ça le dire. infiltrée je parle pas rek de gars yoo xam ne dañoo ñëw dañoo ñëw rek di def euh, euh, di ut xaalis si métier bi loolu c'est moins grave. infiltrés par des combattants politiques qui ont appuyer la destruction des édifices publics dans notre presse waaw am na ñoo xam ne dañoo ànd ak li xew wala dénoncé wuñ ko mais lu xew ñu kii la presse et infiltrée par ces personnes yi nga xam ni journalisme taxu leen a jóg nga def sax erreur sax si sa analyse ñu mën a comprendre déedéet nga am un combat booy mëne et finalement un con combat contre la république am na suñu presse bi Pour quel intérêt inavoué? De la même manière, l'administration sénégalaise est infiltrée à son plus haut niveau nag Penda. Son plus haut niveau. La justice est infiltrée à son plus haut niveau. Mais la tâche de Macky Sall n'est pas facile. C'est que état buy nërmeelu mais foofu lay jaar am na ñu jotee ba tey euh, ci 17 euh, ci 15 décembre jàpp nañ ni euh, président ak ay jegeñaale bu ñu toxalee yëf yi ba le 15 décembre bu leen neexee sax demal ba le 15 décembre yóbbu war ko ba le 25 février. non xam nga am na ñu naan mën na yokk mën na yokkaat mais man tant que bu nekkul loolu nag ce serait extrêmement grave tant que c'est pour sauver la république je suis d'accord tant lii ñuy wax. te loolu du ndamu Macky Sall il faut on soit d'accord sur ça si l'administration nos institutions sont infiltrées au plus haut niveau mais loolu Macky Sall la war a njëkk a metti parce que moo jiite réew bi il est le garant de notre sécurité s'il ne parvient pas à régler ça dem pouvoir bi bàyyi ñu ci condition yi mais ñun dañ koy war a nangu. mais est-ce que Macky Sall mais il serait euh, entièrement foutu par la grande porte ak li fi xew nii yëpp parce que tam c'est une première ñu gis tey jii ñu reporter ay élections peut-être même au lendemain de l'ouverture de la campagne. non reporter rek man na grave. mais lan moo tax ñu reporter mooy wax ji est-ce que si on pèse sur la balance les raisons pour lesquelles on a reporté ak report bi en tant que tel lan mooy gën a peser sur la balance bu fekkee ces accusations là tiennent. bu fekkee l'État est en danger te ñëpp xam ko nag on peut pas faire comme ça comme si de rien n'était benn on peut pas faire comme parce que Sénégal dund na fi en juin loo xam ne mosoo ko dund. mais su fekkee ces ah oui mais la nag là nag c'est grave mais la mais là nag ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité non ils n'ont qu'à non là ils n'ont qu'à prendre retiendra que c'est extrêmement grave pour reporter une élection uniquement pour des raisons politiciennes on a accusé le premier ministre du Sénégal d'être trempé euh, dans des euh, dans, dans dans des affaires de corruption dans des conflits d'intérêts ce serait extrêmement grave si ça s'avère pas lii nga xam ni moom la ñuy accuser le conseil constitutionnel hmm. là donc l'histoire retiendra que pour des raisons politiques la majorité a mis ce pays là à terre hmm. mais nag il faut que ñu xool ndax ces accusations là qui sont très graves hmm. ndax dëgg la dëgg maa ngi gis euh, ci li quotidien euh, tey yaa ngi titré euh, le report acté mais également yaa ngi titré la société civile appelle à une mobilisation citoyenne. oui continue la société civile mm-hmm. am na on peut l'appeler comme ça la société civile mais man jiixi jaaxa laa am si ñoom mais comme j'ai un journal qui va donner la parole qui veut donner la parole à tout le monde on donne la parole mais ban société civile lañu amatee perte léegi. ñi ma dégg yëpp ay opposant lañu ñi ñi ma dégg yëpp ay opposant lañu man dégg naa un membre éminent de la société civile comme on dit bi affaire euh, cocktail molotov bi amee si benn bus ah ñuy waxtaan mu ne oui mais bon tu sais est-ce que c'est du fait que ma ne ko mais quand même y a yow en tant que membre de la société civile da ngay njëkk a njort ni naqarlu ko ba pare doog a xool enquête bi lu muy joxe mais déjà rek a priori nga ni non euh, gouvernement bi moom mooy manipuler dama ni la membre société civile yëpp yu bëri yi wax nii di activé wu par des communiqués yëpp par des communiqués yëpp c'est des opposants ñi jàppale Macky Sall nag gis nañ leen ah société civile buy am buy jàppale Macky Sall nañ ko wax mu leer xam nañ ko ñooñu sax finalement dañoo bàyyi société civile dugg si gouvernement bi dem dem kii <laughs> Euh, comment il appelle Sidiki Kaba ci la woon dem na jàppale Macky mais dafa dugg mu leer ci gouvernement bi. Mm-hmm. Euh, Abdou Latif Coulibaly c' était un journaliste évident tout ça ñu kii ko mais bi muy jàppale Macky Sall dafa dugg mu leer. Mm-hmm. Souleymane Jules Diop journaliste émérite bi mu duggee dafa leer jàppale Macky Sall mais. Mm-hmm. ñii nga xam ne nag dañuy mbubboo société civile alors que c' est des opposants laa lay wax man. derrière de noms des non yoo xam ni euh, acteur non étatiques man la. dama lay wax ni ñu si bari ils se connaissent c'est des gens de l'opposition d'accord alors quand euh, jeex na. jeex na bàyyi nga tàggatoo la fin. <laughs> a été un plaisir comme toujours. waaw yow suñu waxtaan de neex quoi bon wax suñu xalaat. si mhm. fi ñu ko teg. Mhm. yaakaar ni parce que Sénégal daf ñu war a soxal des penda. Mhm. te gis nga il faut pas qu'on hurle avec les loups. c'est que bu fekkee toll na benn mois boo xam ne dañu war a waxante dëgg dañu waxante dëgg. Hein, mais parce que l'intérêt du Sénégal doit primer euh, devant tout autre intérêt. Tout à fait. Hein, donc euh, di jaalewaale également ndeysaan mhm. sama xarit Pape le groupe Pape Pape Cheikh. oui vraiment nga xam ni euh, Cheikh nit ku nit ku baaxoon. c'est ça. Mandu tey vraiment. Mhm. di ko jaale quoi di ko jaale nag tout le groupe. Mhm. parce que koo xam ne yow sa fait des années. ñu ngi lay dégg si scène musicale. ak mhm. scène bi business showbiz bi ni mu yëngatoo. Mhm. mosu ñu leen dégg si dara. Mhm. nga kii ba dellu ni yàlla yóbbuwaat la. ah am nañ jot si moom bu rafet. Mhm. te yàlla na ko yàlla xaare àjjana. alaama amiin alaama amiin donc grand di la remercier. Eh, ci paa boobu nga daanale également ñun également ñu jébbalaat suñu baatum jaal te di ko njaale képp nga mhm. xamante ni moo di soppeem ak jegeñaaleem Sénégal ci sam kaddu. Mhm. di remercier également staff technique bi may gunge ci émission bi di la régie tuuti ak Seydina Ismaïla également la rédaction de Sénégal 7 di leen jox di dégg ak yeneen di plateau